publicité ci kanam jam ñi lu toll ni alxuraan te ci bunt boobu la waxee ne saay bu ngeen jógee nara tàbbi ci biir alxuraan na ngeen muslu ci saytaane ngir bañ a ay kon beneen bunt ma tawa gannaaw bu loolu dañuy nuyu ñëpp nag dale ko ci njabootu Cheikh Moussa gi nga xam ne ay doomam ñoo jiite délégation bi sëtam ñoom ñëpp wàccuwaayu borom ndax euh, alal lu ci gën a yey te dafa am loo xam ne bu la ñoree wala nga gëm ko da ngay dem def baamu gi nga koy baamu sax day mel ni ci loola nga war a des waaye da ngay bañ mu des gannaaw man li ma gëm mooy te bokk naa ko ñu bari nit ku nekk la ko yàlla cërale soo ko bëggee dimbale da koy dimbale ca loola soo ca lottee nga màndu ci te loola donte sa doom dafa am cër bu am boo xam ne cër booba cëram la kon tey waa Dakar ñoo aaye ci waa Kër tey mel na ni tey kon dafa am bor bu ñuy fayeeku wala mu am ñenn ñu ñuy lebal lépp ndax bëri nañ ñooñ tey bu ñu taxawee fii dañuy fay si bor ndax lebal nañ leen luñ war a mën a fay bari na ñu fi teew tamit amaan na mosaguñu ak waaye bor nañuy leb ci ñoom ñi fi daje li ci ba li ci ëpp ci fànn la jaare nuyoo boo xam ne ndox lay doon biir liggéey bu ñëpp waay mën nga ko tàmbali loo ca mën a defin ñëpp nga ko defal man moo ki bokkam foofu laa ci yem euh, njaboot gi nga xam ne nag ñooy njaboot gu ndaw gi ak bu mën a doon sa sëriñ tarixa boo mën a bokk bi nga doonee ndaw rek man laa la boole ci kuréel boobu ndax loola romb na sëriñ romb ndeeg baay ndax loola ak bokkoo la te bokku jamono daf ca feeñ ndaw yi tey mag ñi leen yàlla boole jamono boole googu du du sababu kenn yalla sob rek mu boole la ay mag mag ñoo la yaayal di len omot bañ ñëw tombé ak ndaw yi ñom lañ amé ndaw yi loolu la ndaw yi soxla diko lacc ñom mu am waru gar wo xamni moom mom lañ am ñumit ci di seen diggante ak ndaw yi moy jox leen seen ab yóbbante mëna doon ay kaddu mëna doon jëf mën na doon melokaan yóbbante bi mën naa doon lu nekk kon mag muñ fi woo lañ soxla ci yow du kaay defal ñu nàngam walla kaay yóbbul ñu nàngam xam-xam lañ lay wooye ak melo te loolu soxla nañ ko ci yow xam-xam boobu ñu la ñu la soxlaa ba woo la fi wala melokaan wi nga wi ñu soxla wi ñu la soxlaa ba woo la fi seen alal la mën nañ ko am amee ci jataay bu mel nii mën nañ ko amee ci daje fu ne mën nañ ko amee ci fekk si la wala nga day ñoom feneen waaye fu ñu ko mën a amee te ñi ko soxla ñoo ci jot rek ñoom defe naa ne lañ bëggoon am nañ ko waaye yóbbante boo war a joxe te joxe woo ko itam yan bu diis nag la lay la lay la lay la doon ndax amoo foo ko denc yàlla ba mu yónnee yonent yàlla moom salaam daf ko ne ballex ballex maawante lay lekk waaye jullit yi li leen yàlla mooy amana rasul bi ma unsi lay lay kon muy ñaari yëf yoo xam ne kenn ku ci nekk borom yëf yi dalaa jox directive boo xam ne bii yow ci nga war a jaar yonent bi yàlla da ko jot lii li ma la jox mbindeef yi ñoom yàlla digal leen ñu jël ci li leen yónnent bi indil ñaari kuréel yu daje jataay bu jataay bi tey dafa dafa feeñal ñaari mbir yooyu yëpp su ko defee kon euh, jëmmi Cheikh feeñal ko loola bokkatul ci waajib yi wante jëfam ak jëfam melokaanam loola day dox ba àdduna ba àdduna ba fu àdduna mu doon koo xam ne fu waay mën a dale ci moom foofa nga tombee dale ca waaye du foofa la dale moom fu ci waaye mën a yem tamit du moom foofa la yem xëy na yow foofa nga mën a taxawlu taxawlu fa te loola mooy doxinu démb mooy doon wu tey wi te mooy doon bu ëllëg yi tamit yonent Yàlla moom sallallahu alayhi wa mi nga xam ne ñi fi jaar ñëpp ñu ngi koy tudd tudd di tudd ci ay histoire loo xam ne tàmbali lay doon kenn mënu ko jeexal kooke euh, ba mu tàmbalee ba bi muy waxee ne al yawma akmaltu lakum diinakum jamono booba ñépp déggee woon nañ ko ne fi mu nekk nii kenn dootu dégg dara kenn dootu gis dara am na ñu ko déggee woon noonu samp daara di jàngale wala nga sa bàyyi samp daara nga di ko jàngale ba noppee ko gi ku kontine daara ji ba ci yàgg nga tas boo demee ba yàgg nga ne maamam alxuraan ña ko doon ña ko doon dégg te xam la ñooñu danañ jàpp te gannaaw bu mu tasee daara la dara wax ne maamam alxuraan muy wax yoo xam ne ki koy wax lam ca xam bokkut ak ki koy dégg moo tax déglu ga déglu ga ak ak xariñe ga lool jëmm jooju moo dem ba génne ci alxuraan ay ton ay ton yoo xam ne ci biir ay kilo yi ci la ko génne mu doon loo xam ne lii phénomène la boo xam ne kenn mosu koo xalaat ci àddina kon maa faral naa fi kitaab yi min bi ko yàlla waxee ci téere bii la ko wax te téere bii gisuñ ci garab gu sax gisuñ ci garab gu sax kon déggin wa da fay gën di yaatu té loolu be faaw la lepp lu yalla ni loola la loola lay doon sa loxo bu ko laalul wala sa bëd mënu ci attégué wala sa dégg aggu ci du téré li yalla wax nak loolu la melokanu nitu yalla nak melokanu nitu yalla tombé ga change la ko nam na nga jëriñu ci loola change képp koo xam ne danga ko koo te yàlla nattu lay demal moom mooy def kumpa bu lu ci jëriñ amaana nga sonn mu ñun fu mu laay xeloon wala soo fu mu laay xeloon loolu bi ko yàlla di wax ci coobaram la ko waxee te loolu la ala xuluqin wa yàlla di wax ci coobareem la ko wax yàlla mu dégg dana la koy la koy lay jëfandikoo te am weesu na kon Sëriñ moomu nga xam ne lim ñu bàyyee wala lim bàyyee jamono ñepp ko bok amul frontière kenn ku ne nak la la ci neex wala la nga bëgg wala fa nga ci tollu man nga man ko koo jëfandikoo egg ci fo xamne da ngay defe ne sax keneen neex ci kanam li wara li wara dalal xelu nit ki moy yoon boo xam ne tey jii sa tak ma sa jaar te fekk nga mu mokk fekk nga yoon yu mokk te tey la fi sa tànk ma jaar loolu moo lay wër na moo lay wan ne ñi la raw bëri nañ lool te jotoo yoon ñu yoon bu mokkalee tànk ko mokkal naa yoon yi mokk na nag te yow bokk tey nga ci mas a jaar jàppal ne yoon woowu ñi raw bari nañ lool te ka tege ci yoon la te bañ ko wàcc rek la yoon wa tegtal mën naa danga fa àgg moo tax ku bëgg a ànd ak nit yàlla yi tamit àndi boobu nga war a boole wàlla ci sa programme ñoom dañuy dem lañ ñoo xam ne dañuy toppante laa tufariqu bayna ahadin min jooju yàlla wax ka yàlla jëkk yónni ki nga mujj xam yow ñoo bokk wenn yoonu te dañoo toppante benn béréb lañ jëm te béréb boobu moom mënuma wax ne heure sangam lañ fàgg waaye buñ fàggee duñ ko mën a duñ ko weesu moo tax ku leen topp te wàccuroo yoona ala kulli alin da nga leen fekk fañ jëm ndax mënuñ ko romb amul ku mën a romb yàlla amul ku mën a romb yàlla mboolem ñi tuddee nit yàlla nag cër yu leen yàlla jox ñu yéene ko ñëpp nag tàllal ko ngir bëgg bokk ngir bëgg koo bokk ak jamono ji nga cër yooyu ci la tey tur yi daanaka af ëpp euh, cër la bu yàlla di cër la jaamam duul loo xam ci coobare lay jaar waaye cër la bu la yàlla séddee lu loo mënta jeexal te muy njëriñ te nga yéene ko ñëpp yow te la doon sa yéene mooy nga bokk ak ñëpp Sëriñ bi muy wax naan yaa alal bari yaa alal bari mu joolil bari ndax bari saxaay waaw ah yéen waa ji ak waa ji lagg si leen ci jéer ji ndax géej gi dafa sàmbaraax fa mu ko waxewoon tool nañ fa de fa mu ko waxe woon toll nañ fa fi ñu tuddee diine te mënuñ faa jëriñ kenn foofoo bëri ci jamono ji tey jamono ji sëriñ Touba di wax loolu ku soxla ci diine njëriñ te fekkiwuloo Serigne Touba amaana njëriñ la ngay soxla jàpp naa ne njëriñ loolu ngànt dinañ ci dugg o jolil bari bari saxaay lagg si leen ci jiir ji ndax géej gi dafa sàmbarax lii kay sëriñ bi ko bindal moom géej gu sàmbarax bu mokkal géej sax ñemewu ko waxuma laa nag kuy kuy jàng kuy jàng fee diine ji buñ ko utalee moomeel ku dul yàlla loolu mooy géej gi na ndax njëriñ dootu ca nekk diine ji kenn mënu ko moom ku dul yàlla duñ ko donn diine du lu ñuy donnante Serigne Touba dimbali na ci mboolem ñi bokkat jamono ak ñi fi bàyyi tey gëm ko wala ñu am yitte ba mu woowee ay doomam yum yum meññ jarbaatam nekk ca ay rakkam nekk ca yum bokkal eh, deret mu ne juruma kenn duma bàyyi kenn jarbaatam nekk fa mu ne duma nijaay kenn rakkam nekk fa mu ne duma mbokkam kenn kooku doon na ko ci yonti yàlla moom sala ma kana muhammad abdulaadi min jalikum walakin rasulullah wa xaatimi ni bay wa kaan la bi kulli shay'in alim kon Serigne Touba missionnaire la ñew fi pour mbok def fi ñew pour doxal mission bi yalla bi ñako ci ca oishi tan nangul ko and ak mom bu ca mbok amé bari wu ca te fu mission bi àgg tey foo ñoo ñàkk fa yóbbu gis nga amul kenn kuy jóg yoon yoon nga bëgg a àgg ak sa yóbbal te du wut àndandoor te soxla ko ci waaye ndokk bu mel ni Serigne Touba waxuma yow waxuma moom mi woote kooku jël na na ko mi aussi boo dëggalee boo dëkkalee ku dajeetee yow xam ne daje nga ku dëkk waaw Sëriñ képp ku ko te dëgg la xam ne dana xam ne kii loole mooy njukkal la nag loolu ñu ngi doon làmbatee rek la talibem di dem ko neex di sax Cheikh Moustapha te kenn ko laaj yow da nga yor lu ma tassal ba pare mën sant da nga lol do ko xal ni mën a sant ñu ko sant dañ ko war sant waaye cant gi ñu koy sant yi tamit cantu tàmbali du lu ñuy matal ci mag ñi nga xamante ne tey seeni at bari nañ ba ci ndaw yi nga xam ne ñooy door soobu sóobu nañ xam ne tardé wuñu yi tardé ndax mag ñi jeexal luñ jeexal lañ tiimoon ndax yóbbuwuñ ca dara xam nga géej boo koy naw maanaam booy naw bato bi seen ko muy waa muy muy muy muy naay ci biir ndox mi nga yéem ko ba teg sa loxo ci gémmiñ koo seen joxoñ ko bato bi naan ko xoolal ni bato bi toll yow yaa ngi tagg géej gi te yëgul ko de yaa ngi tagg géej gi te yëgul ko ndax daje boobu nu mu mën a toll nag nu mu mën a toll laa wax bato bu mu mën a doon tey nga di ko naw am na fu mu ñëwee daag ci géej gi kon la mu saakanoon ne Sëriñ Tuubaa di maanante ku dem duy ku sóobu ne mes bu génne xam boromam waaye ku sóobu te wéy taxaw ci yoonam wi feesal la wax ci ay leeram ba foofu di duyee moromu waaye ku sóobu dex na xam ndox ndox bi yeewul te wattum ndox lewen na te wax ci biiram ku sàggan sànku faw ñun taalibe yi loolu lay war kon buñ sàggan nitu yàlla duñ ko yàpp duñ ko kekkantoo waaye duñ ko foye ndax koo xam ne foowul foowul kenn du ko foye Cheikh Moussa dafa lewet Cheikh Moussa dafa tabe sa Moussa dafa baax waaye Cheikh Moussa du moromam kenn ngeen yaakaar ne moromam njort la waaye bis bu ngeen ko natt woon rek xam laa biir gu ëpp nag dafay réeral lu bari waye jamono da ko soxla yalla santane ko ndax euh, fa bi rahmatin min Allah linta long wala kunta fasal qalbi lan fa jumwa min awlik loolu wax yalla lu mu yonent bi kon wote kat yep faw ñu am yermande ci digge sen digante ak ñi wo ngir bëgg leena jëriñ dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daan naa wax ni su ko xaaritoon jar dana ko am